abonné leen ci yu wér te lan bi kum fitna ji xamoon ci réewum Sénégal gouvernement bu Sénégal fa daal di leeral la cay dëgg ci seen janoog taskatu xibaar yi ni ki démb si du quotidien moo ñu ko xamal Le Soleil yéene ne état bu Sénégal kay fa leeral yëf ya naññ njiitu jëwriñ yi Amadou Ba ak ñeenti ministre muy juróom ah. yaaw seetal télé Walf Fadjri li tax ñu coupé ko fañ koo leeral fañoo leeral tamit ñi nga xam ne fañoo dajalo woon di nas ay pexe ngir daana réewum Sénégal ba tey fañoo leeral li tax sonk Sonko ñu tëj ko këram mënta génn ñi nga xam ne nag fa ñuy yàq deru état bu Sénégal ca bitim réew di wax lu amut naka noonu ay ngàndaay yu ñuy wax ne fañ koo jënd tam nekk ca pale ba loolu yëpp Sidiki Kaba fa ko weddi ba mu set wecc naka noonu fa ñoo weddi tamit négociation waxtaan ci suuf bu dox ci diggante njiitéram Macky Sall ak Ousmane Sonko Amadou Ba nee na ba tey vidéo yi nga xam ne fañ cee gis ay nit ñu yore ngàndaay mu jur coow ci dëkk bi ubbi nañ ci ab enquête naka noona tabaski bi gouvernement bi dalal na xelu sénégalais yi ci ne xar bu sobe yàlla du manqué soble beeg pompiter ak yi ni mel tamit du cher info yéene kaay ne man faay xuus sa biir ngir wax leen jëwriñ ju nekk démb la mu wax ak lañ tontu journaliste ya ah. yaaw seetal Sidiki Kaba nee na faa dégg ñoo xam ne fa ñuy wax naan état bu Sénégal ak ay kilifa yu mag yu ko jiite ak ay takk der fañ leen nar a yóbbu ca ëtt attikaay ba nekk bitim réew CPI xàtte leen fa ndax fa ñoo def lu garaaw Sidiki Kaba nee na loolu képp ku ko wax fa ngay wax waxu dof ku daanu ci seret ndax loolu kenn ci ñoo xamul sañ-sañ bi ndax moo xam takk der yi moo xam kilifay réew mi defuñ dara lu tax ñu leen di yóbbu CPI fa ñoo xaar réew mi ci ñoo xam ne ko bëggoon taal yàq ko takk der yi wane seen professionnalisme kon ñii buñ ñu foxantoo Ismaïla Madior Fall moom ma ñu dénk wàllu yoon fañ koo laaj na ko tax Sonko moom ñu daan ko pare te tëjuñ ko kaso mu ne faa di tontu dogalu xàtte bi fa pareegut fañ koy bind lépp ba mu mat su ko defee ñu jox ko ko moom Ousmane Sonko su boobaa nag su ñëwut joxe boppam ñu tëj ko boo parquet bi procureur mën naa joxe digal ñu dem jàpp ko yóbbu tëj kaso su boobaa nag contumace bi ñu ko xàttee fay daanu te su boobaa Ousmane Sonko mën nañ koo àttewaat ña ko àttewoon nag ñoo koy àttewaat daan yañ ko teg na fitna ji yëpp li ko andi ma nga tàmbalee ci xoote gi nga xam ne moom la Ousmane Sonko xootee mortal combat Amadou Ba moo ko wax waaye fa yokk na mboolem koo xam ne dugal nga sa loxo ci fitna ji fi amoon xay daan dana tegu sa kaw fa am ñoo xam ne fa ñoo bëggoon a daana réew mi waaye état bi fa jóg taxaw ngir jàmm xam ci réew mi te ñu doxal yoon yéene kaay bi na gouvernement bi démb ku leen gis ba wax fa ngay xam ne ñii fa ñoo ànd ak dal pare taxaw sàmm réew di tontu ngir jàmm ak dal ci réew mi moo tax te lañ ko bloqué mën nañ koo teggi ndànk-ndànk suñu gisee na jar na ko l'évidence yéen kaay na gouvernement bi koy démb fa dalal xel yi Bougane Gueye Dany mel ni ku naa ko xanaa sa xel lañ dalal yow gis nga bi gouvernement bi waxee ba pare Bougane Gueye Dany fa daal di dajji benn par benn lañ wax wala fajir yéen kaay ñu ko xamal info yéen kaay ne Bougane Gueye Dany kay fa wax na dëgg saa bu génnee ci fenêtre su boobaa safaan ba ca salon ba lay toog de turbine yéen kaay ne Bougane Gueye Dany fa leeral nag benn par benn la jëwriñ wax ah, yaa seet tal nee na ku leen fekk ñuy wax naan vidéo yi nga xam ne fa ñoo wane ay nervi yu yore ngàndaay ci wetu takk der yi kuy wax naan vidéo yi fañ ko manipuler montage ak yooyu wala ñuy wax naan Sonko lu tax teguñ ko loxo mooy xàtte bi décision ba moo pareegut ak wala disponible nekku fi fa ngay wax ne ñii li ñuy wax ni ah Bougane Gueye Dany fa caaxal bëti ko yokk ne enquête bi nga xam ne taskatu xibaar yi nekk bitim réew fañ koo def fa mujj leeral li nga ne nekku dëgg ci yëf li ngeen wax nag ci li tax ngeen tëju leen Ousmane Sonko ak fa ñuy bàyyi ñi nga ne seen xam-xam fa màcc ci wàllu yoon ñu àddu si wàllu dictature jaay doole tëj wàll fa TV lépp taskatu bitim réew yi du baaram express yéene kaay man kay faa jàpp ne gouvernement bi démb séen génn bi exercice bi fañ ko raté de fa ñoo lajj turbine yéen a kaay na ko ñoom fa ñoo expliqué ba pare gouvernement bi waaye convaincre kenn maanaam fa yeyut kenn ca lañ wax l'observateur ne gis-gisu ñu seen xam ci wàllu wax communication ci li xam démb ma ngi ca biir yéen kaay ba yéen kaay bi di critique moom fa ñoo xamal na Ousmane Sonko chef de protocole am ba ci bi njaay nga xam ne moo doon jënd lekk di ko yóbbu ca kër ga fi mu fañ koo tere bu mu duggati ca kër ne mbaadu liñ gis démb moo tax yaw seetal démb Ousmane fa génn ca buntu këram di football mook Jibi Njaay chef de protocole ba fukki fan ak juróom-ñett biñ ko gëjee gis ak léegi démb fa génn di zongale tël balak paasante yi ni mel ba tey moom jiital Pastef la fa wax ne d'accord na ci ñu tas parti bi di APR ndax jëfandikoo ay nervi yu yore ngàndaay magi Pastef yi fa ñoo sàkku ñu jëlee takk dare buntu kër Ousmane Sonko ba mën a doxi ay soxlam rawatina tabaski bi indépendant yi ne kaay ne Sidiki Kaba tamit fa recadré Branco avocat Ousmane Sonko yooyu na gouvernement bi kay fa ñoo weddi démb Ousmane Sonko ba mu set wecc ñoom kay gouvernement bi joxe nañ seen dëgg nañ gisee yëfee démb leer laneen lu leer ba yegg ca naññi ja mooy na liggéeykatu impo yi demen yi fa ñoo xamaloon geraw démb indépendant yi ne kaay nee na geraw bi nag yàqu dara ci liggéey impôt demen bi maanaam gars yi fa ñoo lajj ndax lépp dox na ka dox dem ba kër Momar Sarr mooy l'observateur ndax fa ñu faa xamal jëf ju ñaaw joo xam ne ñetti góor ñoo ko def ñaar ne sax am nañ jabar fa ñoo jàpp soxna soo xam ne am na jëkkër di ko violer seen biir aay good xiidoona ya bunt ba ubbeeku na benn waay daal fa xam jabar waaye waa ji fa fiira fiira fiira fiir ba jéggi dayoo waxtu wu nekk fay topp jabar ji su génnee di xool fu mu dugg ku wax ak jabar ja muy bëgg rey boppam fiire surveiller topp googu mu koy topp fa dem ba mu yàgg daal mu njortu ne jabar ji fa xam far xam nga nu mu defam fa bàyyi ba mu ñëw fa rocci paaka fa ko koo jam di ko ko bojj fukki paaka ak benn ba soxna sa faatu ñàkk ba kanam allah enquête yéen ko xamal jëkkër ji def ñaawtif Amadou Seydou Diallo la tudd boo moytu giir ak dundam lañ ko nar a tëj kaso l'observateur ne yëf yaa nga amee ca Tambacounda waa ma ne li nga def fa ñaaw trop njort rek amoo sax lu la leer rek nga jam paaka ba mu dee ñaaw na de wallaay fase woon ko nga dem seeti moromam moo gën li nga def de xam nga ne kenn dootu la may jabar ba pare bu buñ la tëjee sa giir dund ca kaso gëlee su boobaa xaayi fa lay xenu abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa su yu wér te wóor aju ci